bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci garabug Tuuba ci xaajub juróom ñaareel bi ñu ngi toll ci fanweer bi ak ñett sëriñ bi xaada lahoo allahu maxtaar lahoo nee na yàlla subhaanahu wa am na li nuy tegtal ak amam mooy mindeefi ndax lépp lu am mënta ñàkk ku ko bind di ko wërsëgal di ko dundal di ko dekkal sunu boroom nag amul fu mu tàmbalee ndax bu amoon fu mu tàmbalee kon dana am jamono joo xam ne amutoon te bu boobaa dana aajawoo ko koy amal te sunu boroom du aajawoo kenn sunu boroom amul fu mu yem ndax bu amoon fu mu yem kon ak amam day nekk lu dagan te sunu boroom ak amam lu war la du ñàkk mukk sunu boroom set na ci gépp manki melo woona wépp melo wu yell ci moom sunu borom ku wuuteeg mbindeef yépp la kenn nuruwu ko day dégg di gis lépp loo xalaat sunu borom woote naag moom sunu borom amul doom sunu boroom amul baay sunu boroom amul ku koy dimbali sunu borom amul soxna mbooleem mbindeef yi dañu koy aajowoo waxtu wu nekk te moom mu doylu ci ñépp sunu boroom amul jamono sunu borom nekkul ci bërëb sunu boroom am na njëkk jamono di am ak barab ak ginnaaw bi ñu amee ñoom ñaar ak bu ñu demee ba ñàkk sunu boroom day dund ci ak dund ku bokkut ak dundu mbindeef sunu boroom ay meloom yépp nuroo wuñu meloy mbindeef sunu boroom moo xam jëmmam ak i meloom kenn mënut a xam ab dayoom ci ak màgg ku dul moom kenn mënut xam ay meloom ku moom sunu boroom xam na lépp dara ump lu nekk ci kaw asamaan ya ak suuf si ak géej yi aw xob bala moo wadd ci suuf dana ko xam amul guddi amul bëccëg lépp looy xam njëkk muy am ak bu amee ak gin ginnaaw bu amee ba wéy dara mënuta am te neexu ko lépp lu mu bëgg mën na ko amal lépp lu am moo ko dogal ba ñuy weddi yàlla subhanahu wa taala ak mooy yàlla subhanahu wa taala waaye gërëmu leen bokk na ci ngëneelu sunu boroom ku koy topp dalay bindal tuyaaba mën naa jéggal itam ku koy moy te weddiwu ko waaye ab sawara lay beel sunu boroom moo bind jaam mi ak seeni jëf waaye day fay jaam bi ci li mu jëm ki tànnuk boppam ci saahir mooy yàlla subhanahu wa li war nanoo gëm ni lii lakke tey màndal tey dog mooy yàlla subhanahu wa subhanahu du sawara du nox du ngànnaay naka noonu liy suural du aw ñam ay jumtuwaay lañu yu ñuy sababloo amul kenn ku mën a jeexital dara wala mu mën a xéewale kenn ci mbindeef ku dul yàlla subhanahu wa waaye moo digle nuy sant ngir rafetal ci nun war na noo gëm ni ajjana ak sawara am nañu bu wér naka noonu siraat lu am la natt jëf yi lu am la naka noonu seerik cër yi lu am la malaaka yi bind jëf yi ñu am lañu laaju mbàmmeel lu am la yooyu yëpp sunu boroom moo leen amal teewul xam na lépp te aajowowul ku koy xamal leen limu ci jublu moo di yëkkati ay nit ak suufeel ay nit war na noo gëm ni ku faatu ci ab xare dee su ko laaj te day dund dund goo xam ni yàlla subhanahu wa moo koy xam ku am darajay faatu ci xare te faatuwul ci ab xare dees na ko laaj laaj gu woyof képp ku ñu rey ca àpp ak dig ba ko sunu boroom bindal ca la war na noo gëm ni yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi am na déeg bu ñuy wax kaw sara nun xeetam bi noo cay naan bu ëllëgee war na noo gëm ni dana rammu mbindeef yépp ëllëg wali wi radiallahu taala anhum danañu rammu ginnaawam ak nit ñu baax ñi ak boroom xam-xam yi war na gëm ni yàlla subhanahu wa taala day dégg di gis di wax wax joo xam ni amul fu mu tàmbale amul fu mu yem nekkul kuy wax tuuti noppi tuuti ay waxam amul kàddu amul xaraf nuroowul ak daray waxi mindeef waxam jooje ca la doon wax ak sayyiduna Muusa alayhi salaatu wa waxi yàlla ji di alquran ci sayyiduna Jibril alayhi salaam wàcce ay baatam ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mooy ngën gi téere ay baatam mindeef la mu jugee ci yàlla subhanahu wa naka noonu tawreet ak linjiil ak téere yépp teewul yahood yi soppi nañu ci téere yooyu ak nasraan yi alxuraan nag folli na mbooreem téere ya ko jiitu képp ku nekk ci diine judul lislaam deesu ko nangul te bu ëllëgee dana perte war na noo gëm ni yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama boroom an na guddi gu mu ko rañaan mu juge makka dem baytil muqaddas juge fa yéeg ci asamaan yi ba àgg fa soob yàlla subhanahu wa taala gis na borooy boroomam itam ci ay bëtam waaye melul ni gisug mbindeef yi gis goo xam ni moo mag yàlla subhanahu wa ñoo koy xam kenn du gis yàlla subhanahu wa ci àdduna kudul yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bu ñi danañ ko gis lépp lu ñëw ci alxuraan ci xeeti wax joo xam ni man naa tax nuy fas lu nu wërta fas danoo war a xam ni lam ca jublu du zahir sax mel ni wajhu rabbika ak yaddullahi ak istawa alal harsh wajaa rabbuk war nanoo gëm ni sayiduna jibril alayhi salaam ak mikail ak israfil ak asrail ak malik mi wattu sawaray ak ridwaan mi wattu ajjanay ak munkar ak nakir ak mboole malaaka yi nekk ci asmaan yi ak malaaka yi yanu aras ak yi wër aras ñoom ñépp kenn du ci jëf ja bàkkaar duñu lekk duñu naan duñu góor duñu jigéen ay mbindeef lañu yu yàlla subhanahu wa bind ci leer ñu nekk ci asamaan yi ak ci suuf si sunu boroom moo xam ne ña toll war nanoo gëm ni muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jaamub yàlla la subhanahu wa taala tey ndawam di ab xaritam di ab soppeem di kum waxal sayduna ibrahim ak muusa ak isa ak nuux ak adama ak idris ak hud ak salih ak shaibu ak lot ak ismail ak ishaq ak yaqub ak yusuf ak yunus ak daawud ak suleyman ak zakariyaw ak yahya ak alyasa ak aliyas ak ayub ak harun ak zolkifli ak alhasis ak mboolem yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom ñëpp kenn du ci wax lu amul duñu wor ñu bàyyi itam lañu leen waxloo danañu lekk di naan di booloog seeni soxna di tawat tawat joo xam ni du tax kenn di leen daw ñoom ñëpp ku ci bëgg àdduna mu topp la na nga ko bëggee waaye dañuy dëddu lool war nanoo gëm ni yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moo gën nit ak ginne ak malaaka aw xeetam itam ñoo gën ci xeet yi ñu dul yonante yi sayduna abu bakrin moo gën ci xeet wi ak sayduna omar ak sayduna usman ak sayduna aliyu radiallahu taala anhum sahaaba yépp ci ak njub lañu nekkoon mbooleem loo dégg ci seeni xare danga ko koo war a wéer fu rafet te ñoom ñëpp ku ci nekk lu jubla la jublu woon ca la muy def te dana dana ca am tuyaaba saxaaba yi nag ñoo gën ci xeet wi bu ñu jàllee ña leen toppoon bu ñu jàllee ña leen toppoon sayidatuna aisha radiallahu taala anha war nanoo gëm ni loole ñu ko doon waxal set na ca wicc ndax sunu boroom moo ko setal képp koo xam ni danga wedd loo xam ni ak waram lu fis la ci diine mel ni julli juróom wala nga wax ni dekki amul dañu lay jàppe ab yéefar daa di lay rey lépp lu baax mi ngi ci topp mag ñu baax ña mag ñu yiw ña mag ñu dëddu ña mag ña daan muñ tey wakiirlu ci yàlla subhanahu wa taala ñooy waliyu yàlla ya te ñooy boroom karaama ya bu ñuy dund ak bu ñu faatoo xaraam na mépp mag muy fen ci gént wala muy jëw te moo di wax ci nit ñi lu leen dul neex boo leen gisul te laa biir ko naka noonu bu bu ñu teewee xaraam na itam di leen lor ci saw làmmiñ wala say loxo ci seen jëmm wala seen alal lor goo xam ni yoon waralu ko naka noonu yéefari yi nu fasanteelu wëllëre li feek firiwuñu ko xaraam na ci góor muy nuru nuru lu jigéen xaraam na ci jigéen muy nuru nurulu góor xaraam na wat ab sikkim ak ay naano mooy kawaru naano lay wax xaraam na jëfandikoo wurus ak xaalis ak sooy ci góor lu mel ni tux ci ay bant boroom xam-xam yi wuute nañu ci waaye boyyi ko moo gën a yey xaraam na jëfandikoo luy fàdd am xel lépp luy fàdd am xel te doon luy ruy sobe la doonte lu mel ni soow la mu wex dagan na jëfandikoo jaaroob xaalis bu nekk benn ci góor te ëppul ñaari dërëm xaraam na nataal lu amug ruu waaye ba tey li gën a yey ci lu amul ak ruu mooy bañ koo netaal xaraam na di xool képp koo xam ni dangay ragal fitna wu ci moom ak di wax ak moom ak di wéet moom ak di xalaat ci ay rafet rafetam naka noonu jumtukaayu foy xaraam na ak ndabul wurus ak xaalis ci góor ak jigéen gone bu amee juróom-ñaari at warees na koy digal muy julli bu amee fukki at ñu di ko dóor bu julliwul tey teqale digganteem mag moroomam ci tëdduwaay yi mag mu saxal warug julli ba noppi bàyyi ko dañu koy yeexe ba ca mujjug waxtu wax bu julliwul yoon rey ko reyu gétan te mooy dees na ko sang sàng ko jullee ko suul ko ca armeeli jullit ña loolu mi ngi ci xatu juróom-ñeen fukk ak benn ci diiwaanu diyaafatul xuddoos wallahu aalam sëriñ bi xaadala woo laahu maxtaar la woo nee leen gaawe topp ndigal tey moytu tere gaawe topp ndigal day waral ngërëmul yàlla subhanahu wa taala yéexe bàyyi tere yi day waral nuur ci bàkkaar nu yàlla doole musal dee leen rafet njot saa su ndigal jugee ca ka leen war ku rafet njot am la mu bëgg lépp dee leen taqoo la leen yàlla subhanahu wa taala tànnal képp kuy taqoo la ko yàlla subhanahu wa taala tànnal dana am mbóot ak leer yoo xam ni danañu dox diggam ak lëndam ak réer ak deseer bu leen jëm mukk ci loo xam ni nekkul lu yàlla subhanahu wa taala gërëm ci ay pas-pas ak i wax ak i jëf ak i jikko képp ku jëm ci loo xam ni boroomam gërëmu ko ci moom dana dajeeg lu mu gërëmul yal na nu yàlla doole musal képp kuy sori lépp loo xam ni sunu boroom gërëmu ko sunu boroom dana ko may ay may yu rëy tey ak ëllëg dee leen wut xam-xam ngir jëmmi yàlla subhanahu wa bu ngeen ko amee ngeen di ko jàngale ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala xam-xam bu am njariñ nag moo ma tax a wax waaye waxuma xam-xam boo xam ni du dolli iman islam ihsan di leen farlu ci jëf tey ami teggiin tey bañ a képp kuy jëf ci lu dul xam-xam jëfam day sànku képp ku xam te doo ko jëfe doo jariñu ku xam tey jëfe te amul teggiin ñaawal na yal na nu yàlla dollee musal ku xam tey jëfe te ami teggiin rafetal na kuy rafetal nag lu rafet rek lañu koy faye ci ab xam-xamam ak i jëfam ak i teggiinam ku tàyyeel ci xam-xam réer na ku tàyyeel ci jëf perte na ku tàyyeel ci teggiin sori na yàlla subhanahu wa taala tàyyeel nag li koy waral moo di bu muuru xol bu muuru li koy waral mooy bakkaari wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu loolu mi ngi ci xatu juróom ñeen fukk ak ñett ci diiwaanu diyaafatul xuddoos ba tey xaada lahoo law maxtaar lahoo bi mu musloo ci seytaane noonu yi mu ko baaxoo musloo tàmbuli ci turu boroomam lii la wax man jaamub yàlla subhaanahu wa taala ahmadu yal na ma yàlla dolli tawféex te ànd ak man maa ngi nuyu jullit yépp yu góor yi ak yu jigéen yi di leen xamal ni képp ku ñëw ci yéen wax leen ni damay sàkku ci yéen alal wala dama leen di diggal lu dul topp yàlla subhaanahu wa ak topp yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ko fen nga wassalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu subha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin ci xatu juróom ñeen fukk ak ñeent ci diwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu wallahu maxtaara lahu nee na képp aju ci man na xam ni dama jublu sama boroom ci ay mbind yoo xam ni jullit ñépp danañu ci jariñu adduna ak alaxira mbooleem la ma bind ba ma nekkee ci géej ga liggéeyub yonante bi la sallallahu taala alayhi alihi wa sahbihi ak zikar ak jihaad du leneen moo tax ma tere ngeen ku leen di toxal ba nëbbu naa leen bind yeleen jiitu nanguwu ci dara ku bëgg njariñ njariñi adduna ak alaxira farlul ci lima bind li tàmbulee baksasin ci samak des bind yooyee kawe nañu lu dul alquran ak hadis ci lu dog am nañu barke bu mag boo xam ni nekkul ci yeneen mbind yi loolu mi ngi xatu juróom ñeen fukk ak juróom ci diiwaanu diyaafatul quddus wallahu alam sëriñ bi xaada lahu allahu maxtaar lahu bi mu musloo ci saytaane ni mu ko baaxoo musloo buy tàmbuli julli na ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa képp ku gis lii na xam ni am na ci nit ñi ñoo xam ni dañuy gëm mayug yàlla subhanahu wa taala akug maandoom am na ñu leen di weddi ku mu neex na gëm ku mu neex na weddi waaye sunu boroom bonoom ngëneel yi dana jagleel yéen mëneem ku ko neex yal na nu yàlla subhanahu wa taala musal ci ak kéefar ak yéefar yi bokk na ci li waral kéefar weddi ñi yàlla may ak jagle jàpp ni sunu boroom ak jagleem yam na fenn wala ci ci ñenn la yal na nu musal ci loolu te may jàmm képp kuy topp ak njub loolu mi ngi ci xatu juróom-ñeen fukk ak juróom benn ci diwaanu diyaafatul quddus ba tey wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu allahu la lahu bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama lii la wax lii la wax yow mi laaj xamal ni lépp loo xam ni sariyaxan nangu na ko du bidaa du xaada ak jaamu la ak jaamu yàlla nag lu ñu digle la waaye dee su ko tere yeneen yeneen laaj yi moom kiimaan la yéeme na lool ab saadix daa war a mel ni ab new bu ñuy sang murid bu mel noo nii bu fekkee ab sëriñam mat na ci zahir ak baatin mënta ñàkk mat loolu li ciy firnde moo di man mii di la tontu noonu laa ànde woon ak yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ay at ba mujj ma ki koy liggéeyal ba mujj ma doon ki koy liggéeyal wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lool mi ngi ci xatu juróom-ñeen fukk ak juróom-ñett ci diwaanu diyaafatul xuddoos sëriñ bi xaada la wallahu maxtaara loo lii muy bëgg a tontu nii la ko tudde li man lahul kashfu walil mahjub fi jawaabil muridi ibrahima Diop njariñul ku yàlla wan ak ku wanul ma di ci tontu ibrahima Diop bi mu sante yàlla subhanahu wa julli ci yonante bi sallallahu taala alay bi ali wa sahbi wa lii la wax sa mbind sa mbind yu rafet yi aksi na ci man yal la yàlla fay aw yiw walay faral ñaawteef yépp soppi leen ay yiw ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa tontu ci dénkaan bi ngay wax moodi lii yonante bi sallallahu taala alayhi wa wax nee na képp ku gëm yàlla subhanahu wa taala ak bis penc wax aw yiw walla nga noppi dee leen def aw yiw ndax ngeen texe sunu boroom lépp looy wax mi ngi koy dégg bis penc mooy bis ba nga xam ni lépp loo waxoon ca la koy fay moo tax boo nekkee ci kërug liggéey gi te moo di àdduna di wax aw yiw bu ëllëgee da nga tàbbi ajjana ibrahima del wax aw yiw lépp loo xam ni aw ay la bu ko wax jëf aw yiw mooy yoonu texe te nga xam ni xam-xam yi am njariñ yépp ak jëf yu yiw ak teggeen yi ñu gërëm lépp mi ngi ci biir laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama laa ilaha illallahu mooy bul jaamu kudul yàlla subhanahu wa taala muhammadun rasulullahi mooy bul jaamu yàlla ci lu dul aw yoonam kuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa dana dem ba xam ni yàlla kenn la kuy jaamu yàlla subhanahu wa taala ci lu dul sunna si bi sallallahu taala dem ba xam ni yonante bi sallallahu taala alayhi sunu boroom moo ko yónni loolu sunu boroom wax ni ku topp yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam topp na yàlla subhanahu wa aw tagg mënu koo weesu naka noonu li mu wax ni bu leen topp jéegooy seytaane aw ŋàññi mënu koo weesu wali wi ñaar lañu wali wu yàlla subhanahu wa ak wali seytaane wali yu yàlla subhanahu wa taala mooy kuy jaamu yàlla subhanahu wa taala ci sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallam noonu sunu boroom moo koy wattu di ko soreel seytaane ndax moo ni samay jaam seytaane amul ci ñoom wàll koo xam ni du jaamu yàlla subhanahu wa taala wala muy jaamu yàlla subhanahu wa taala ci dul ci ludul sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mooy ko sunu borom wàcc ndax moo ni illa lima illa man ittabaaka min algaawin ku beew seytaane lay àndal in yansurkum allahu fala gaaliba lakum wa in yaxdulkum faman dallasi yansurukum min baadi bu leen yàlla subhanahu wa taala kenn du leen not bu leen wàccee amul ku leen di dimbule lii ma wax leer na loolu ngay laaj ci koo xam ni day bàyyi julli juróom di woote la muy woote maa salakakum fi saqar xaaloo lam nakku min al musallin leen dugal sawara ñu ni dañu daan bañ a julli wasalaamu aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته لول من تي خاتو جوروم نين فك اك جوروم نينت تي ديوانو ديافة القدوس والله اعلم سرين بخاد له الله مختار له بمجلية يوننتبي صلى الله تعالى عليه بآله وسبي وسلم من خمل عبد الله السالم رضي الله تعالى عنه نيكو والليل إساء أدبار كني وقت نافع ak hamza ak xaf bu ñuy jàng dañuy jàpp ni daal gi daa maas nekk alif topp ci te mooy is adbara am na ñuy jàng isaa dabara lu ci ne waxin la te mooy dëddu guddi gi am na lu ma wax ci sama ra'iya bu barkeel ba ci waxinu ñaareel wi ila siwaaya man qolaaniya dabar wala yufaarixu xorooxan ka dabar dabar mooy waxiinu orachin asfara mooy leer na danañu wax safara ak asfara waaye ay saafiru waaye assaafiru bi firi aji tukki amul fial na nga yeewu ci ni nekk gi dabara nekk waxinu oraysin mooy sababu loolu nekk noo nii wallahu alam loolu mi ci xatu téeméer ci diwaan boobu sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na deel gaawe ak tuub tey sori sàggan tey moytu jëw ak fen bul ànd ak kudul ku lay dolli ak jaamu yàlla subhanahu wa ak yéene aw yiw del taqoo yéene aw yiw bala ngaa wax wala nga def boo sàmmee baat yi danga am ak yokk loolu mi ngi ci xatu téeméer ci diiwaanu diyaafatul xudduus sëriñ bi xaadalawoo laaw maxtaar lawoo nee na ngistal xaraam na képp kuy ngistal du am la mu bëgg kuy ngistal sunu borom da koy mere sunu boroom mi ngi tëkku ci am mbugal ñiy julli di ngistal di fàtte seen boroom ak julli gi sellal nag moo di safaanam képp kuy sellal day sori bépp yeddaange sunu boroom mi ngi leen di tagg di wax naan ñi nga xam ni bu ñuy joxe aw ñam dañuy wax ni yàlla kese moo tax ñu leen koy jox bëgguñu ci yéen ak fay wala ak sant mas nañoo laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam luy musle mu ni booy jaamu yàlla nga bañ cee jublu nit ñi loolu mooy musle xatu téeméer ak benn ci diiwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaara lahoo bi mu musloo ci seytaane nu mu noonu mu ko baaxoo musloo julli na ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ñaan bayit yi muy bëgg a def ak seeni leeral ñu doon xam-xam bu am njariñ bu barkeel buy leer ci ab dënn di muri ak muuraay ci ab xol lii la wax yow muy wut ngërëmul yàlla subhanahu wa taala del taqoo tedd ngay jikko yi tedd ngay jikko yi ngay laabe ci ngay note ci ngay kawee bokk na ci ngay jéggal ku la tooñ tey jox ku la xañ tey jokk ku lay dog képp kuy jéggal ku koy tooñ sunu boroom da koy jéggal képp kuy jox ku koy xañ sunu boroom dana ko jox loo xam ni dana ko fàttaloo xañ googee mu koy xañ képp kuy jokk ku koy dog sunu boroom sunu boroom dana ko may lu tax kookee mujj di ko jokk sopp ko lool jéggale moo di kookee la tooñ bul jëmale ci moom lenn lu koy lor ci sab xol wala sa jëf jéggale dañu danañu ko digle di ko tere jéggale gi ñuy digle mooy tooñ goo xam ni daa dox sa digg kenn waaye loo xam ni xaq sunu borom da caa nekk mënta ñàkk ñu def layoon santaane ci moom dañuy tere di ko jéggale bu fekkee mënaan mëneef naa def layoon santaane ci moom bu fekkee mëneef naa def layoon santaane ci moom di ko jéggale lan aaye lu mel ni jox ku la dul jox foo ko fekk ka koy def du bëgg ak fay wala ak sant ca kamu koy jox dañuy sàtt kooke ngay jox di ko dimbali ko ci mbiri diine walla mu koy taxa bàyyi lor ak jullit bu fekkee dako daan def ba tey ak jokk bu fekkee la nga ci jublu mooy dimbalante ci topp yàlla subhanahu wa taala ak ragal ko loolu mooy jokk gañuy sant waaye bu dee safaan bi du doon lañu taamu bokk na ci tedd ngay jikko bàyyi lépp lu ak xëyib yépp bokk na ci yi tedd ngay jikko da nga kawe martaba ci adduna ak ëllëg da nga not say noon ci lu dul xeex ak xuloo ak xëccoo bokk na ci li gën ci tedd ngay jikko lii may bëgg a wax te mooy di jàng alxuraan di setantal bokk na ci li gën ci tedd ngay jikko lii may bëgg a wax te di jàng di settantal maxnaa yi loolu képp ku koy def dana boole mboolem li nekk ci téere yi boroom xam-xam yi ci ngëneelul yàlla subhanahu wa taala ndax moo ni bàyyiwuma ci téere bi dara bokk na ci tedd ngay jikko soxla woo xam-xam bu am njariñ ak jëf ju yiw ak teggin ya ñu gërëm képp ku soxla woo yii te bo te boole leen texe na texe gu mag bokk na ci tedd ngay jikko bañ a geestu lépp lu amul njariñ moo tax ma naan del jublu yàlla subhanahu wa taala te bañ a gestu kon dana la sore saytaane yi ak gàkk yi subhana rabbika rabbil xissati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ngi ci xatu téeméer ak ñeent ci diwaanu diyaafatul quddus wallahu aalam